ñoom dañu def l' état des lieux. ci biir état des lieux ñu dem ba ne waa Sénégal état du Sénégal dañu doon falsifier ay chiffres. ce qui mais imaginez loolu Sénégalais naka la ñu mënee déglu loolu ces inepties là ñu leen di déglu pendant des minutes et des minutes. pour ne pas dire des heures. c'est le premier ministre qui le disait hein. quelqu'un qui est très yi mënu leen a nax nax na leen. ba ñu votel ko ba mu jël réew mi mais mënul continuer di nax sénégalais yi ba ci réew mi c'est pas possible ces propos du premier ministre euh, ne colle pas à la à la vérité loolu moom xaw a mais les propos du premier ne colle pas à la vérité parce que niveau d'information bi bi mu yor waroo ko mën a weddi yow mi mais mais en parlant de Sonko yéen kay xam ngeen lu ci Sonko Sonko c'est extraordinaire depuis qu'il est là il ne fait que mentir aux Sénégalais. c'est ça la réalité s'il vous plaît non demal demal lu parce que c'est-à-dire que parce que certains ont pour beaucoup moins que ça. mais mais ce qu'il a dit au mhm. président Macky c'est pire. il a dit que le président était en de mentir aux Sénégalais. c'est lui qui ment c'est lui c'est lui en réalité qui ment aux Sénégalais naka la ñu mënee dribbler FMI naka la Banque mondiale pendant autant d'années je vous rappelle que FMI Banque mondiale les plus grands économistes au monde fa la ñu ne mais c'est pas possible ñoom du ñu dugal ci seen xaalis ci tappale ak ci mensonge ak ci lu dul dëgg ak ci falsification. mais le premier ministre aussi c'est pas vrai euh, du dem bay wax loo xam ne xëy na waru ko. parce que comme ni la ko waxee sànq il a tellement d'informations yoo xam ne euh, xëy na tey jii mooy contredire yéen li nga ñu yàgg wax te ci loolu loolu loolu Sénégalais yi xaar. mais ñoom. am na lu ñu fi waxoon newoon nañu les élections législatives de 2017 et les mm-hmm. élections législatives de 2022 ñoom lan lañ campagne woon wëy président Macky Sall dafi bëgg dugal ay góor jigéen mbirum mm-hmm. góor jigéen ba tax ñu gagné élection yi mais loolu bu mu jàllee ci ñoom dañ toogaat ci plateau yi ne loolu du dëgg waaw kenn ci ñoom wax na ko kenn ci ñoom wax na ko mm-hmm. ne loolu du dëgg dañ ko wax juste pour nax sénégalais yi ñu voté leen dañ ko wax juste pour gagner les élections c'était de bonne guerre c'est la mhm. communication loolu lan moo ko gën a bon ci àdduna donc moo lay woon ne ñii lépp lu ñu la wax suba ba ngoon il faut toujours en douter mhm. te li ñu wax keroog fiir firndeel na ko parce que aujourd'hui je ne peux pas être un officiel Sonko il oublie que maintenant il n'est plus officier c'est un officiel am na loo xam ne boo koy wax sax sa bopp ngay yàqal en tant que tenant du au lieu de venir venir du ñu ñëw. dañuy ragal a ñëw. Mhm. parce que boo jëlee sa économie nga ne économie bi non seulement dañu doon falsifier ay chiffres mais économie dara baaxu ci mais les gens ne vont pas muser leur argent. Mhm. les gens ne sont pas fous. mais te FMI ak Banque mondiale réew bu ñu dugalul seen xaalis. un bailleur ne va jamais venir mettre son argent. c'est ça la règle léegi ñu wax ci wàllum politique yaa ngi wax sànq ne nañ bàyyi président Macky Sall mu noppal.